songo salamu alaikum ay asu iya, asu maaleykum salam waaye ñu xel ni nii ñu ngi nii yéen ngi ci jàmm nga génn baax na def way waaye namm len leen de ah asu li nga kan def lu mu tuddu li waaw xana pela pela ak la ko rek lu mu jëm kaw nang ko xéer ay allahu akbar man ko adal adal ak lu mu jëm kaw nang ko xéer eh adal adal ay mu jëm kaw na nga ko xeer yéen ñaa ngi kontaan naa ci mais bëgg nañ ci yow ci loola nekk yéen a ci jàmm ñu ci jàmm waa naka koor gi nag waaye ñu ngi nii tey nag waaw ñun dañoo ñëw léegi pour nga dimbali ci weeru koor gi maa la joxe suukaru koor voilà ci question la yéen nag fi ngeen ma fekk tey baaxul ah laaj man de li ma yoroon yëpp def naa ko sama ginaar Sénégal ma ne ko Sénégal ginaar gu ma jinjeer ba mu saf ginaar ginaaru añ daal laa am aw ma ginaaru ndog. Eh, léegi. donc non non non non dégg nga en tout cas daal bu leen bëggee ginaar. waaw ngeen wax ma waaye loolu moom am fi añ bu baax a fi am. moom dama woor def yow yaa woor man eh man damaa gis mbaax. mbaax ci góor. waaw eh. eh damaa gis mbaax wóoruma. damaa gis mbaax wóoruma. loolu indi boolu ginaar gi en tout cas dal lama ko jinjeer mo yow loko lan jinjeer lii yow kon na tok yow kay fu mu ko xaar mo ma ma man dama gis ba ko ko sa ngay def rëpëtë rëpëtë yow waroo tas man ki jeexal la ma man ki dama bëgg jox mo tas ay peer la tega sama ginaar ginaar gitteem lima ko toggee en tout cas def naa ci jinjer bo barakaani sañ sama ya, touti nana raté nga tay dé en tout cas benen yoon dal moy dak benen yoonee nga ñew dina la defal lu bax nga logo ko pé da nga jot man ba dama tooñ te yëguma ko père ah yaakaar ah eh, ah ki ah eh, asu

yow at bëgg naa la wallaahi na yow. mbaalu kontaan nga. yow may naa la sama yaay sama papa yëpp may naa la